قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن ginnaaw bañ jógee ci waa daayira ahlu café nag dañu ñëw fii nga xamante ne moom moo di waa collation nga xamante ne ñoom ñoo géré lépp li wàllum masrobaat di wàllum naan yi ñoom ñoo ko géré ñu ngi ci liggéenti ak segg li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum euh, euh, naan bi euh, sëñ bi ma jox la kàddu gi mu nuyoo bu nuyoo pare gi doog dugg ci laaj tontu asalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaanal sëñ mu taxa Mbàkke mu yàgg fi lool ci wér Euh, tur bi nan la. Mbaye Sall. mbay Mbaye Sall sëñ Mbaye yéen a géré lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllum naan yi naka ngeen ko préparé ak euh, jus bi ma leen fekk actuellement ngeen koy euh, ngeen koy ngeen koy defar ban jus la. waaw yaakaar naa fi ñu tàmbalee rek mooy ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu ci wér. ndax comme lii ndigal la loo xam ni yaakaar naa ak jaamu yàlla la rek. goo xam ne yaakaar naa mu murid yëpp lañ ko déggal kon dañ ciy santaat sëñ bi bu baax xam ne ak cant la goo xam ne luñ ci def rek lu bari bari bari maanaam matalewul ak xasida yi luñ ci defit lu mu néew néew néew xasida yi ëpp na lool kon yaakaar naa si li nga fekk nii sax daa mel ni lu ñu defar nii la rek waaye su ma la doon limal li ñu defaregoon ci ay si mën naa ni la defar nañ defar nañ eh, vingt cinq mille jënd nañ ko vingt cinq mille ay biteel yoo xam ni yëpp ay si lañ ko def nga xam yaakaar naa suñ ko doon lim eh, amul ab lim daal ndax yaakaar naa fépp fu ne ci biir jumaa ji wala li wër jumaa ji créé nañ fa benn site boo xam ni yaakaar naa kenn ku nekk moo xam ndox la moo xam glace la moo xam xeet naa ni boo boo bu mu ci mën di doon rek xeetu si rek yëpp rek loolu su ma ko doon lim tey ji du jeex moo tax kenn waaw ay sites yu bari la ci biir jumaa ji kenn ku ne ay site ay site daal yoo xam ni comme ni mu amee fii ci biir kër sëñ Touba gi noonu noonu la amee ci biir jumaa ji noonu la amee yu wër kër sëñ yëpp kon yaakaar naa ni day liggéey bu rëy rëy boo xam ni sëñ bi bi mu ko digleet yaa mel ni murid yëpp ñoo ko seet naka dafa am nag day daayira bu leen boole da def rek dikk rek yéen daayira kenn ku nekk rek def sa yoonu bopp waaye lii nag day ndigal loo xam ni ma ko waxee léegi rek sëñ bi moo ko diglee waaye bi mu ko diglee day mel ni dafa wax waa Hizbut Tarqiyyah ñu taxaw ko waaye dafa ne nañ ko ànd ak murit yëpp ak kuréeli xasida yëpp ñëpp ànd ko ba nga xam ne day mel ni ñëpp ànd lépp bokk waaye mais du loo xam ni dafa mel dam daayira bu beer rek boo xam ne moom lañ ko bàyyee maanaam ñëpp a ko bokk ndax baasu sëñ bi moom bu xasee jib rek ñëpp a ngi ci biir amul amul amul amul amul xaaj ak seen amul xaaj ak mu mel ne kon ku wax uh, wàllum uh, naan yi uh, wàllum seral gi tamit dina jaaxal ni ngi ndax jamonoy tàngal lay nekk nan ngeen def ba seral ko waaw sereel bi nag xam naa ni li tax duñ ci jaaxle mooy day mel ni collation yi teel nañ cee jublu defar ko glace ge teel naa ñëw ba nga xam ni bii ci guddi lépp luy collation rek seral nañ ko ci guddi nga xam ni 3 heures 4 heures lañ tàmbali fépp fu collation war a dem rek ñu chargé ko ci oto yi séddale nga xam ne faaw su demee dañ fay sottiwaat galaas ndax comme collation bi ay 10 heures 11 heures midi lañ koy jëfandikoo loolu tax ñu waaye lépp ba nga xam ni benn jafe-jafe du ci am. lan mooy kàddu yi nga xam moom ngay tàggatoo. waaw kàddu yi may tàggatoo xanaa gën a ñaanalaat sëñ Mountakha mu yàgg fi rek ca ñi ñaan. niñ taxawee nii déwén ñun ñëpp ñu fekke waat ko nii ànd koog sëñ bi ànd koog murit yëpp sëñ bi defal ñu tawféex baax a baax. macha allah mbokk yi kon xam naa ne loolu mooy liggéey bi nga xamante ne jëlee nañ ko fii ba tey ngeen gis wàllum collation muy wàllum naan sedd di ko jox jaam yàlla yi ngir ñu mën di ko mu mel ne kon noonu rek mooy àdduna sàngoor ak sedd moo fi nekk waa café gi ñi ngi nii di seere wàllum tàngaay bi waaye tamit saadatu daaray ni te lépp ci def rek ñu daje tàng ngërëmal Serigne Touba ah, fii ci kër Serigne Touba ci biir ah, li nga xamante ne moom ah, liggéey bi ñu amal jëmee ci wàllum li nga bi ñu ngi sant di gërëm ñëpp ci kanam tuuti ñu jàll ci yeneen waañ Moustapha Dieng la ak mboolem ñi nga xamante ñoo takkatoo di liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu qasaidi min mujizatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa xasaa'idi min mu'jizaatil muntaxaa salla alayhi man hadaahu wantaqaa haajat qasaa'idi ya qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman